sëriñ moor awa njaay sëriñ moor awa njaay mi ngi feeñ jamono ci atum 1863 ci dëkk bu ñuy wax mbiri mbiri mi ngi ci département bu bambey ci suuf si nag di bawal ci dëkk boobu nag la feeñee jamono ci atum 1863 di doomu soxna awa kan fay ak ku ñuy wax maam madun asta ndiir njaay moom sëriñ moor awa njaay nag ginnaaw bu mu feeñee jamono am na nag ñum bokkal soxna awa kan fay mii ak sëriñ maam madun asta ndiir njaay mii ñu mën caa ràññee ku ñuy wax sëriñ aale awa njaay im nu soxna awa kan fay im nu sëriñ madun asta ndiir njaay soxna Assu Mbata Ndiaye bintu soxna Awa Kan Fay bintu sëriñ Moodu Asta Ndiir Ndiaye ak moom sëriñ Moor Awa Ndiaye ëm nu soxna Awa Kan Fay ëm nu sëriñ Madun Asta Ndiir Ndiaye ñaar ñii nag la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ak moom muy ñett njaboot gi mu bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ñu xamale leen ne ñoom ñooy kan soxna Assu Mbata Ndiaye mu bokkal soxna Awa Kan Fay moom meññ ku ñuy wax soxna Mati Géey soxna Mati Géey moomu moo jur ku ñuy wax soxna Faat Loo Ndiaye soxna Faat Loo Ndiaye bi mu matee dem kër sëriñ Moodu Juuf Faati nag lañ ko joxoon mook sëriñ du faatu Diouf mii am nañ nag benn bant muy soxna Faati Bayax Diouf sëriñ Aale Awa Ndiaye mi mbokkal soxna Awa Kan Fay ak sëriñ Madoun Asta Ndiir Ndiaye moo meññ ku ñuy wax sëriñ Ahmadou Ndiaye sëriñ Ahmadou Ndiaye mii sax ci jàmbaar yi toppoon sëriñ Mor Awa Ndiaye la bokk sëriñ Ahmadou njaay mii ku ñuy wax maam Maaram Koddu Ndiaye moo nekk ab xalifaam jamono jii njaboot gii nag la bokkal waajuru góor ak waajur wu jigéen des nag ci dëkk boobu mu feeñe jamono nag di yi bi dal alxuraanul karim gay nag lañ ko yóbbu woon ci sëriñ Mamor Samba ci sëriñ Mamor Samba mii nag la jànge alxuraanul karim ginnaaw bi nag la delsiwaat mbéri ci ku ñuy wax sëriñ Ceerno Salif Sow ginnaaw mbéri nag la dem pir fas yéenee jàng na xam-xam ci dëkk boobu di piir nag la géejoo nag ci wàllu xam-xam mu delsiwaat nag ci dëkku waajuram ci ëttu waajuram di mbéri gu màkka laataa muy jóge pir sax jël na fa nag wird ba nekk sax mu xàddam tàmbalee joxe nag wird ginnaaw bu mu delsee nag ci dëkku waajuram indaale na fa am mbooloo nag wala nag am mbooloo itam wird nag ci moom topp ko fa nag ngir tariixa tiijaan bi ci mbooloo mi àndoon ak moom nag jël wird ñu mën cee ràññee ku ñuy wax sëriñ Mafal Njonge sëriñ Abdoulaye Sarr sëriñ Jibril Seen ak ku ñuy wax sëriñ Babacar Fall ñeent ñii nag la jébbaloon nag wirdu tiijaan nag wi mu yoroon mu wéy nag des nag ci dëkk boobu di mbiri gu mag di jàng a jàngale taxawaloon na fa kër nag ba dëkkoo woon faag lu tolloog ñaari soxna waaye ñaari soxna yooyu mu yoroon nag amu ci nag ak njaboota wirdu tiijaan woowu mu yoroon nag ba di ko joxee gu mag googu ay Serigne Mor Awa Ndiaye mii wala jortoon nañ ne daal Serigne Mor Awa njaay mii yoon wi mu jël baax na waaye nag da cee ëppal tax na ay mbokki boppam nag amoon na beneen bët nag bu buñ ko doon xoolee wu bokkut ak nag mbokk nag giñ bokk ak mooma tax na nag mu am ay xat-xat nag ci dëkk boobu ak mbooloo nag mi mu àndal ci wirdu wow mu yoroon nag di ko joxe nag di wirdu tijaaniya ci jafe-jafe yooyu nag la wéy nekk boole koog nag di liggéey nag ba tax na itam nag demoon na fa nag ci dëkk bu ñuy wax tul ci suuf si nag di bawal buur ba fa newoon nag ñu koy wax am doon waxtaan ak buur ba nag di teeñ waaye ñoom ñaar nag jubóowuñ woon nag ci ay kàddu tax na nag mu bàyyee ko woon fa delsiwaat nag ci dëkk bi mu feeñe jamono nag di mbéri gu màkk ab diir bu néew nag la fi def bàyyee ko waat fi dem nag ci suuf si nag di siina ca buur siin nag bi fi nekkoon bëgg a nekk nag ab conseiller nag wala nag ku koy ñaanal ginnaaw bu mu waxtaanee ak buur bi nag ba juboo guddi gam fa njëkk a fanaane nag ci wirde bi mu doon def nag ci la am nag lu ñëw nag fël nag kurusam bi mu toogaatee ab diir nag la loola delsi nag di ko xamal ne lii daal du sa wàll seeti nag ku ñuy wax Ahmadou Bamba nga jox ko nag sa bopp ci guddi googu itam nag la fa bàyyi ko ñëw nag ci bëkk néegu buur bi di ko xamal ne daal buur laa soxla woon li ma sant daal munuma ko damaa bëggoon a delluwaat nag fa ma cosaanoo bëkk néeg ma nag di ko xamal ne buur daal tëdd na jamono jii nag munuma koo yee coow loolu mu séqoo nag bëkk néegu buur bi nag ci la buur nag laajtee nag lu xew mu di ko xamal ne lii ma séqoo nag yaw daal munatuma ko damaa bëggoon a delluwaat nag fa ma cosaanoo ginnaaw bu mu delsee nag mbir la waaj nag aw yoon fekki nag ku baax ki rasul booba nag la fekk itam nag ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasul di toll nag ci sanc Tuubaa mu ñëw jaayantee ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasul ci dëkk bu selli bii nag di Tuubaa def na fi nag ay fan wala ab diir ginnaaw bi nag la ko seexul xaadim yeewi nag mu del siwaat nag ci dëkk boobu mu cosaanoo nag di mbiri ginnaaw bu mu ñëwaatee nag la fi fekk nag lu gën a piir sax lam fi bàyyi woon mbokk yi kat foogoon nañ ne wërdu wi mu yoroon nag di wërdu tijaaniya lu bon bon nag moo tane woon lee mu fekki nag tax na nag xeex bi a metti nag ci moom ziar ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul seexul xaadim nag di ko xamal ne soo demee nag nga àndu nag lu tollu kilomètre sanc nag ab dëkk te nekk fa yaag mbooloo mi la topp lool moo waral nag bi mu ñëwee mu sanc nag ab dëkk tudde ko daarul sa ñu gën koo xam nag ci mbiri gu ndaw wala ñu gën koo xam nag ci mbiri laataa muy sanc sax dëkk boobu nag di mbiri ñu wax leen tuuti nag ci ay jafe-jafe nag yu sëriñ Mor Awa Njaay nag jànkontooloon ci bi muy doog a fekk si nag ku baax ki sëriñ tubaa baax ki sëriñ seexul xaddiim nag nangul ko ak njébbalam bi mu del siwaate nag ci dëkk boobu mu cosaanoo nag di mbéri gu mi xam ne nii nag moom la leen fekkoon wala tañ toppoon ko ca nag di tarixa tijaaniya mi ngi leen doon xamal ne dama bëggoon nag ñu waxtaan bu fekkee ne daal mam tarixa bii ngeen bëgg a wéy baye boo ngeen wéy nag dem wuti nag ku leen cay sax bu fekkee ne nag lu bees lii ma nekk nag ñëw leen nag ñu dem ca la mbooloo ma nag doon ko xamal ne bañ lay topp daal yàlla rek moom moo taxoon lépp loo ñu woo nag dañ la cay fekk si ay mbokki boppam nag tàmbali nag di ko xeex nag xeex bu metti di wax ne diine jee mu nekkoon nag fekkoon ci ay maamam tariixa ba nag di tariixa tijaaniya ni mu ci doon doxe nag dafa ëpp waaye nag lu bon bon nag moo tane lii mu dem nag di yoonu murit tax na nag jafe-jafe yu méttee métti nag dund na ko nag ci dëkk boobu ci gépp xeex nag guñ ko mën a xeexee ginnaaw bu mu dellusiwaatee ci Seexul Xadiim nag la ko Seexul Xadiim nag di ko xamal ne soo demee nag nga àndu lu soriwul dara nag dëkk ba sanc nag ab dëkk tuddee ko nag daarul xuddoos bi sëriñ Moor Awa Njaay ñëwee nag la àndu na nag lu toll kilomètre nag ci digganteem ak dëkk bi mu cosaanoo nag di gu mag sanc fa dëkk bi mu tudde daarul xuddoos ci dëkk bii nag la génne àdduna dëkk bii itam nag lañ ko denc ak njabootam itam nag ci dëkk bii nag la ñu nekk bi muy sanc nag dëkk boobu nag di daarul xuddoos mbooloo mi mu àndaloon nag sanc si dëkk ba nag ñu mën cee ràññee ñu wax sëriñ Ahmadou Ndiaye di doomi magam mën cee ràññee ku ñu wax sëriñ Babacar Fall sëriñ Mafal Njonge soxna sukkay na sëy di soxna sim njëkk dëkkool ak doomam nag soxna Ami Ndiaye mbooloo daarul xuddoos mu wéy nag nekk nag ci dëkk boobu nag di daarul xuddoos ñu gën koo xam ci mbir di liggéeyal ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasool lépp loo xam ne nii nag Seexul Xaadim soxla na ko kenn mënu ko ca guerre mondiale 14 18 bi yabal na fa nag ay góor yàlla ci bi sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim nag di laaj mag ñi ñu mën cee ràññee ku ñu wax sëriñ ma sekk gay njaaya sëriñ bu Jooxa sëriñ Aliñ Ndaw sëriñ Aliou Njaay njàppee ak ku ñuy wax sëriñ maam maaram Njaay yaayaa góor yàlla yi nag la yóbbu woon ci guerre mondiale bi xaddiim nag nekkee gànnaar bi muy dem gànnaar nag ñii la àndaloon ñu man cee ràññe ku ñuy wax sëriñ ahmadu njaay di doomi magam sëriñ baabakar faal nag di ab taalibeem sëriñ musa mbay sëriñ birahim siise ginnaaw gànnaar nag ci yéen jolof ci yéen jolof itam nag daana fa dem waaye li ëppoon nag ci yéen jolof dafa daa yónnee ku ñuy wax sëriñ moor njaay bayax la daa yónni nag ci dëkk boobu nag di ci yéen ginnaaw ci yéen nag njaareem njaareem itam nag daana fa yónnee daana fa dem njaareem googu sax wax nañ ne amoon na fa kër mu wéy nag topp nag ci ginnaaw ku baax ki sëriñ tubaa xaadim ko liggéeyal def ko sëriñ nag def ko royukaay ba ni cheikhul xadim nag génnee àdduna ci atum 1927 bi cheikhul xadim génnee àdduna nag ci atum 1927 la fab léppam nag jébbal maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru di ko xoole nag cheikhul xadim ba ni mu génnee àdduna ci atum 1937 mu wii nag des nag ci dëkk boobu nag di mbiri di yar di jàng ak di jàngale tax na nag ci tundu mbiri woowu lu takkoo takkoo takku nag def na ko fa am na nag ay soxna nag yum dëkkoo woon dëkkool moom meññi sax ab taawam bu ñuy wax soxna ami Ndiaye soxna ami Ndiaye moom nag am na ñeent nag ñu bokkal soxna sukkay sëy ak sëriñ Moor Awa Ndiaye ñeent ñépp nag ko baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul nag liñ leen tuddee ñaar ñi nag ñoo ko magoon ñaar ñi nag moo leen mag doom jooju sax di soxna ami njaay bi mu matee dem kër sëriñ maa béy géey nag lañ ko joxoon sëriñ Moor Awa njaay nag yoraatoon na beneen soxna bu ñuy wax soxna Yaasin Kan mook soxna Yaasin Kan nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee kam faye woon maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru Njaay ak maneen soxna faati Njaay yoraatoon na baneen soxna nag bu ñuy wax soxna faati Fall mook soxna faati Fall nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññi ku ñuy wax sëriñ Mbay Njaay sëriñ Mbàkke Faatu Njaay soxna Awa Njaay yoraatoon na baneen soxna nag bu ñuy wax soxna faati Siise mook soxna faati Siise nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññi ku ñuy wax sëriñ Maxtaar Njaay sëriñ Mbàkke faati Njaay soxna Binta Njaay soxna Ummi Njaay soxna Assu Faatu Njaay ak soxna faati Jóob Njaay doom jooju nag di soxna Assu Faatu Njaay bi mu matee dem kër ku ñuy wax nag sëriñ Daawuda Gay nag lañ ko joxoon yoraatoon na beneen soxna nag bu ñuy wax soxna Busa Ngom mook soxna Busa Ngom am nañ ak njaboota ñu mën cee ku ñuy wax sëriñ Abdourahmaan Njaaya sëriñ Mbàkke soxna Njaaya maam Ceerno Njaay ak soxna Mbeen Njaaya yoraatoon na beneen soxna nag bu ñuy wax soxna Assu Njaay mook soxna Assu Njaay nag am nañu ak njaboota ñu mën caa ràññee sëriñ Masamba Njaay sëriñ Fàllu Njaay sëriñ Cheikh Kunta Njaay soxna Picc Njaay ak maam Ceerno Asta Njaay yoraatoon na beneen soxna nag bu ñuy wax soxna Assu Juufa mook soxna Assu Diouf nag am nañ ak njaboota ñu mën caa ràññee sëriñ Abdul Xuddoos Njaay soxna Mariama Kunta Njaay sëriñ Moodu Mustapha Njaay yoraatoon na baneen soxna nag bu ñuy wax soxna May Faal moo soxna May Faal nag am nañ ak njaboota ñu mën caa ràññee ku ñuy wax sëriñ Aale Njaay yoraatoon na baneen soxna nag bu ñuy wax soxna Assu Géey moo soxna Assu Géey nag am nañ ak njaboota ñu mën caa ràññee ñuy wax sëriñ Fàllu Njaay ak ku ñuy wax Maam Ceerno Njaay wala sëriñ Ceerno Njaay yoraatoon na baneen soxna nag bu ñuy wax soxna roq Roqaya Ndiir moo soxna Roqaya Ndiir nag am nañ ak njaboota ca ràññee maam Busa Njaay sëriñ Basiiru Njaay ak sëriñ Musaa Njaay yoraatoon na baneen soxna nag bu ñuy wax soxna Assu Faal mook soxna Assu Faal nag am nañ ak njaboota ñu mën caa ràññee ñuy wax sëriñ Ndaam Njaay yoraatoon na baneen soxna nag bu ñuy wax soxna Roqaya Sëy mook soxna Roqaya Sëy nag am nañ ak njaboota ñu mën caa ràññee ku ñuy wax soxna Ami Njaay yoraatoon na baneen soxna nag bu ñuy wax soxna Faatu Juuf mook soxna Faatu Juuf nag am nañ ak njaboota ñu mën caa ràññee ñuy wax sëriñ Omar Njaay ak soxna Roqaya Njaay soxna yooyu nag la dëkkoo soxna yooyu itim ñenn ñi nag dañoo génn àdduna nag ci nekkinu sëriñ Mor Awa Ndiaye ñenn ñi itim nag suñ borom dogal seenu diggante yam fa ba tax na nag bi muy génn àdduna ñeenti soxna rek ñoo taxawu ginnaawam soxna yooyu mu dëkkoo woon nag njaboot yooyu ñu leen limal nag la ci am mu nekkin nag ku bëgg sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul tax na itam nag liggéeyal na ko lu bare baree baree bari nag ci dëkk boobu mu nekkoon nag di daarul xuddoosa ñu gën koo xam nag ci mbiri njaay ñu baree baree bari ci mag ñi nag amoon naag ñoom itam ak jaxasoo ñu mën cee ràññee maam Cheikh na Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru tudd na ko ñett ñaari yoon doom ginnaaw sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim moom itim nag la joxoon boppam maam Cheikh Anta Mbàkke borom dërëm ak ngërëm ku jaxasoo woon ak moom la maam Cheikh Anta Mbàkke itim nag daanako ko seet si jaxasoo googu mu jaxasoo woon ak mooma tax na itim nag sëriñ Moor Awa Njaay tudde na ko dooma rakki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuuli ñoom ñépp daal la jaxasoo loon ku jaxasoo woon ak sëriñ ma Yaasin Kala sëriñ ma Yaasin Kana ci seexi borom daaru yi nag la bokkoon sëriñ Alioune Diouf Lambaay ñoo bokkoon tundu Bawal tax na itim nag ku jaxasoo woon ak moom la Amady Ndiaye di doomu soxna Matiloo Guèye di jarbaatu sëriñ Mor Awa Ndiaye jébbaloon ko sëriñ Modou Diouf Lambaye mook sëriñ Modou Diouf Lambaye sax am nañ nag benn bant soxna Astou Mbène Diouf ci kóllëre sëriñ Mor Awa Ndiaye ñu mën ca ràññee sëriñ Babacar Ndiaye Cargaan sëriñ Mor Awa Ndiaye tudde na ko dooma ndax ñoom ñaar ay mbokk lañ te ñoo bokkoon nekk itam nag ci seen tundu bawal woowu sëriñ Massamba Fall Sanjara bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul sëriñ Mor Awa Ndiaye tudde na ko la ku jaxasoo woon ak moom la laataa muy ñëw ci ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul maam si ibrahima fall nag mas na koo fekk nag ci dëkkub waajuram boobu nag di mbir yi doon xamal nag ki mu àndal sëriñ moor awa njaay mii yàgg-yàgg daal dana ñëw nag jaayante ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ndax ñoom ñaar fa ñu ànde ñun fekke wuñ ko tax na bi mu jaayante ku baax ki sëriñ tubaa xaadim a amoon na ak wëllëre nag ak maam si ibrahima fall lamp baabul muriidiina njabootug sëriñ tubaa xaadim rasuul gi ñu ci bare bare bari nag fekk si nañ ko nag ci dëkk boobu nag di mbir Mamadul Moustapha Mbacke doom tudde na Cheikh Mamadul Faadal Mbacke doom tudde na Cheikh Mamadul Bachir Mbacke ibnu Sëriñ Tuuba Xaadim Rasul doom tudde na soxna Faati Isa mi nekk waajuru maam Ceerno Ibrahima Faati Mbacke ndaamal daaru doom ak yeneen ak yeneen i mag nag yu mu jaxasoo loon moom Sëriñ Moor Awa Njaay mu wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di daarul xuddoos lu takkoo takku nag def na ko nag ci dëkk boobu di daarul xuddoos ñu gën koo xam nag ci mbir yi taxawaloon na fa nag daaray alxuraanul karim di jàng ak di jàngale ndono lool kat la doon def nag laataa muy ñëw ci Rasul daaray alxuraan jam fa taxawaloon ñu mën caa ràññee ku ñuy wax sëriñ maam maaram njaaya sëriñ mbàkke faati njaaya sëriñ maalik faal ci dëkk bu ñuy wax bayax ñii nag ñoo yoroon daaray alxuraan ji nag di jàng ka jàngale sëriñ maalik faal mii sax ci mujjug sëriñ moor awa njaay saa buy yónnee nag ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim daana ko yónni itim nag ci ku baax ki ginnaaw bu fi ku baax ki bàyyi ko itim saa buy yónnee itim nag ci maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru sëriñ maalik faal mii itim nag moo daa dem mu nekkoon nag ku jege sëriñ moor awa njaay mu tarbiya ju màgg di liggéey nag di it ku baax ki sëriñ daaray tarbiya jam fa taxawaloon te jëwriñ ya fa nekkoon itim ñu mën caa ràññee ku ñuy wax sëriñ ahmadu njaaya di doomi magam sëriñ omar badiane ci dëkk bu ñuy wax mbaa ma jaw ak ñeneen ak yeneen i donga nag yu fa nekkoon mu taxawal nag kuréelu mawlut ngir ñuy yëkkati na xasiday ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool la ca kuréelu mawlut gam taxawaloon ñu nekkoon jëwriñu kuréel ga ñu mën caa ràññee ku ñuy wax sëriñ mbay ngóone faal ak sëriñ ceerno faal ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñu àndaloon itam nag ci kuréelu mawlud ga mën a yar googu nag mu nekke woon moom sëriñ Mor Awa Ndiaye mag ñi itam nag seedeeloon nañ ko ko ci biir kër nag ni mu daa yare fexe woon na nag bu góor ñi jigéen ñi nag du duñu jaxasoo su añ masaa jot ba jigéen ñi togg ko nag ba pare dañuy fexe nag ba wut fuñ ko teg góor ñi nag dem jëli ko ci ñi sëriñ Mor Awa njaay nag waxoon ne nag saa bu jigéen ñi paree añ nag nañ dem jëli ko nag ñu mënoon ca ràññe ku ñu wax sëriñ Omar Badiane sëriñ Ahmadou Ndiaye di doomi magam sëriñ maam maram ñoo doon dox nag ci diggante jigéen ñi ak góor ñi ba ak jaxasoo nag di ci am mën a yar googu nag mu mënoon a yar tax na nag mag ñi nag daanañ seede ne ku yàqoo ci ëttub sëriñ Moor Awa Njaay kenn duutu la mën a defar mu nekkitim nag ku bëgg ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nekkitim nag ku baax nekkitim nag ku yéeme di dundal nag ndonal Seexul Xaadim li ba tax na itam nag ci département bu Bambey boobu kenn yëbbu foo woon ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ko jaarale nag ci mooma ci lool nag la sax wéy nag des nag ci dëkk boobu ànd ak nag ay góor yàlla nag yu mu defar ca biir góore yàlla yu mu defar nag ñu man ku ñuy wax sëriñ Ahmadou Ndiaye man cee ràññee ku ñuy wax sëriñ Mor Binta Guèye ci dëkk bu ñuy wax Siin ñu man cee ràññee ku ñuy wax sëriñ Daouda Gaye ci dëkk bu ñuy wax Jurbel man cee ràññee ku ñuy wax sëriñ Mor Badiane man cee ràññee ku ñuy wax sëriñ Baara Ndaw man ku ñuy wax sëriñ Assane Guèye ci dëkk bu ñuy wax Tawa man ku ñuy wax sëriñ Maam Maaraam Ngóone Ndiaye man cee ràññee ku ñuy wax Daouda Tall man cee ràññee ku ñuy wax Abdoulaye Sarr ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ay góor yàlla nag yu mu defar ngir jëmmi ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul daarul xuddoosa ñu koo xam nag ci mbiri njaay ba ci atum 1937 di xaar nag kàddu gi ko ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul waxoon ndax seexul xaadim nag mi ngi doon xamal sëriñ moor awa di ko xamal ne mohammed maag yow daal suñ boroom xamal na ma ne ñoo war a bokk nag ay at nag yu ñu dund moo tax itam nag juróom-ñaar fukki at ak juróom ci la dund soo delloo nag ci mbindum sëriñ mouhamadou jóob dagana ci téere bi mu bind jagleel ko nag maa gisa wala ku fekke moo ma nettali ci biir xasida googu nag sëriñ mouhamadou jóob dagana ma ngi cay nettali ne sëriñ sëriñ moor awa njaay nag wax ne ko ne seexul xadim nag mas na koo wax ni maag yow nag ñooy bokk nag lu ñu dund mu ne nag bisub keroog nag bi ko ko seexul xadim nag di nettali mi ngi koy xamal ne nag yii nag ñu jëm kilifa ak nag wala kilifa gu xees nag dana génn àdduna te jamono jooju nag la seex siidiya baaba nag génn àdduna ñu teewlu nag li ci sëriñ mouhamadou joob dagana bind ci li seexul xadim waxoon nag sëriñ moor awa njaay di ko xamal ne maag yow daal ñoo bokk nag lu ñuy dund te sëriñ mouhamadou joob dagana nag di ko seede nag ci am mbindam bismillahi rahmaani rahim wa minha ma aqbarani bihi muhammad hawa ibnu muhammadul muxtaar njaay annahu aqbarahu asayxul kabir sannata bamsasin bi annahum rubu ala adadi ayati surati sumari isnatani wa sapona wa alamatu sidqi asalika almawtu asalihin kabirin bidanin fa maata asayqi sidia baba fi tilka al ayami kaddu yooyu nag la sëriñ Mouhamadou Diop Dagana bind ngir seede nag ci wax ju sëriñ Touba Seexul Xaddim waxoon sëriñ Mor Awa Ndiaye sëriñ Mor Awa Ndiaye nag wéy des nag ci dëkk boobu mu sancoon nag di daarul xuddoosa ba ni mu génnee àdduna ci atum ci feebar bu ko tëral mu alximis ñaar fukki fan ak ñett ci weeru digg ci atum 1355 ci gàddaay gi alximis ñaar fukki fan ak ñett ci weeru digg ci atum 1355 ci gàddaay gi dëppoog muy jeudi 4 février 1937 jeudi 4 février 1937 bis boobu nag ci la génn àdduna ñu yëgal ko nag kamu yaakaaroon jébbaloon ko boppam nag ginnaaw seexul xadiima di maam Ceerno Ibrahima Faati maam na moo yónnee digle itam nag ñu denc ko ci dëkk boobu mu goroon sancoon ko ci ndigalul ku baax ki Sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul tam féete woon fa génnee fa àdduna di daarul xuddoos ñu gën koo xam ci mbiri njaay doomam ji mu faye ku baax ki sëriñ tubaa xaadim lu ñu koy wax sëriñ mbàkke faati njaay moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ca penku dëkk ba bisub keroog sax bi mu génnee àdduna biñ koy denc lu yéemee yéeme sax xew na sax bisub denc ba waajal nañ ko ay yoon yoon heure buñ ko waajalee fañ ko war a jébbal boroomam nag am sikk wala mu am gàllankoor ginnaaw bi nag lañu xool ne jébbal boroomam képp koo xam ne nii da ngay jëfandikoo lépp lu aju ci wàllum tuxa bul fekkee nag dencam bisub keroog nag biñ koy jébbal boroomam nag am na koo xam ne itam nag da doon jëfandikoo ci wàllum tux tam fekke nag bisam bu mujj boobu loolu moo waral nag heure buñ ko waajalee ba noppi fañ koy waajal nag am gàllankoor ginnaaw buñ xoolaatee mbooloo mi nag lañ yéeg ne nag li sëriñ bi bëggul woon nag am na nag ci mbooloo mi soo delloo nag ci marché bi ko sëriñ Modou Diop defal di jàngalekatu alxuraan dib taalif kat mag ñuy wax nag lu bare bare bare bare nag ci dunduk sëriñ Mor Awa Ndiaye laataa muy ñëw ci yoon wi nag ni mu doon doxalee ak bi mu jaayanteeg seexul xaddiim nag ni mu doon doxalee muritug sëriñ Mor Awa Ndiaye nag ci seexul xaddiim ak gaaw a jot ngërëm nag gaaw a jot ngërëm ci loxoy seexul xaddiim ci kóllëre nag gum amoon nag maam Ceerno nag bu tudde ko ñetti doom ak yéeme gum yéeme woon nag ci mën a yar lu bare bare bare daal lañu sëriñ Moodu Jóob nooru daare ni nag di waxal ci way yim leel nag sëriñ Mor Awa Ndiaye ñu teewlu ko ci tur yàlla mi lay tàmbulee musli ci seytaane noon ba mag nga jéem say matiyaar ki am ngërëm dafay ba jox nga neel def ko ne làmp bu ñu taal muy parte leeral waa bawal di gindi mboolem ngëlëm kookaa di cheikh Mor Awa Njaay jàmbaar ja woon kër Mbari Njaay nga mos la tekki laxasaay ba fekk bamba am ngërëm ba wax na ak ñëw jamonoom lu tuuti kon nga xam ne moom am nay nga neel ba suñ boroom fii nu nekk fa leen jëm bambaa ko jiitoo fukki at dellu ko jiitoo fukki at ñoom ñaara bokk yokk limi at yu ñu dund lii doy na cëram ci loxo Cheikh Massamba Gueye sangam nga doon fóore jógey dëkkoon sa ma Massamba Gueye la jànge fànni xam-xamam ba mu fa jugee lu wër boroom xam-xam yawoon te jamonoom ba mujj tiim waa jamonoom ci xeeti xam-xam ak xikam gannaaw ba sax na kër mbëri ci xam ne quraan di firi tey joxe wer di yare Cheikh Bamba xëy ko wan ndiram mu dal di tàggu bokk ya bàyyi njaboot gaak soxna ya mbooloo ma ñëpp jaaxle na naa ci xanaa dafa gëlëm ma sancub sëriñ bi ab dëkkam ba ko gënal ci ay dëkkam Tuuba te mooy ngeen ji kanam mu jébbaloo daaru xuddu ab diir bu néew dana tabi sëriñ bi duy ko ba mu fees waccee ko boole ko ngaram fekkoon na Cheikh Ibra Fall foo fekk sëriñ Masamba Fall sanjara ak yeneen rijaal fa sëñ dañuy sàkku ngaram mu am ci ñoom ñu jaaxle lool ngir tarbiyaam ku gàtt lool ak yi mayam yu yaatu lool dem fekk foofe ay kamam sëriñ bi woo kenn ci ñoom defarlu ab gàtt fa moom ba moom muy wax ne mbaa du fa dem loolu la wax ci am bi tontu am kalam naa ko ku ñëw fi nun dabam nam mel la nuy dee ndabam mu delluwaat fa i njaay Seex Bamba def ci moom lu bàyyi mënul ci doom mbaata njaay muy sañ ñi mboolem ay kemam mboolem ñu xaj doon jël si waat ñu ganta doon jaayante waat ñu yàq woon mu defaraat leen ñuy defar ay kemikem ginnaaw ti kub Seexul Xadiim ci géej la fa mboolem mbiram jëggal ko Ibra Faati moom topp ko def ko ab sangam doyloo ko lum am jox ko ko lum masa bay yónnee ko ko wax nañ ne it tudde ko ñett ñoo ñaari cheikh maam Thierno Ndiaye moom soxna Yaasin Thierno Ndiaye moom astu gay manu gërëm Cheikh Ibra daana wax ne nun ku defar yàqoo fi nun la lay defar du doon fi nun xanaa ko sëñ Moor man gërëm sëriñ Moor Awa Ndiaye nag ay xalifaam nag nii la tëddee li ko dalee nag ci atum 1937 ba ci atum 1966 muy ab xalifaam nag bu njëkk di sëriñ Thierno Yaasin Ndiaye ñaareelu xalifa sëriñ Moor Awa Ndiaye di sëriñ Mbacke Faati Ndiaye di kim faye sëriñ Touba Cheikhul Khadim moo ko nag ci atum 1966 ba ci atum 1985 ñetteelu xalifa nag sëriñ Mor Awa Ndiaye mooy sëriñ Maxtaar Ndiaye moo ko wuutu nag ci atum 1985 ba ci 1998 ñeenteelu xalifa nag sëriñ Mor Awa Ndiaye mooy ka maam Thierno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru tudde woon doomam nag sëriñ Abdul Xuddoos Mbàkke muy sëriñ Abdul Xuddoos Ndiaye moo ko wuutu ci atum 1998 ba ci atum 2010 juróomeelu xalifa sëriñ Mor Awa Ndiaye di kam faye woon nag maam Cheikh Anta Mbàkke moo fi nekk nag ci atum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 xaddiim di sëriñ mbàkke faati njaay moom tam nag dafa wéyal nag bis bi di ñaar fukki fan ak ñett nag ci weeru digg di ci fàttaliku nag seen waajur wa nag ba tey màggal na ko nag ci diiru nag ak xilaafaam ginnaaw bu nag koo xam ne ni daal wuutu nga sëriñ moor awa njaay yow itam nag bis boobu itam nag da koo jëloon muy ñaar fukki fan ak ñett nag ci weeru digg di ci fàttaliku nag seen waajur wa ba ni sëriñ abdul xuddoos njaay nag toogee toogaayu nag sëriñ moor awa njaay la jël bis boobu nag di ñaar fukki fan ak ñett nag ci weeru digg nag bi mujj nag ci weeru tamxarit ñu jàpp bis boobu nag di ko màggal ci dëkk boobu nag di mbéri di dëkk bi nga xam ne nii nag ci lañ denc nag sëriñ Mor Awa Ndiaye samedi boobu nag mujj nag ci weeru tamxarit sëriñ Abdul Xuddoos Ndiaye nag mi nga ko jàpp méngale ko bis bi sëriñ Mor Awa Ndiaye nag jébbalu woon nag ci sëriñ Touba Seexul Xadiima weer wa nag weeru tamxarit la woon bis ba itam nag bisub gaaw nag la woon fan ya nag moo leen umpoon bi sëriñ Abdul Xuddoos Ndiaye nag àndeek rakkam nag sëriñ Seex Kunta Ndiaye ñu dem nag ci ki fi nekkaloon sëriñ Touba Saalihu Mbàkke di ko xamal ne bis bee daal ñuy defal sëriñ Mor Awa Ndiaye bëggoon a amal waxoon nañu ne daal bisub gaaw nag la jébbuloon ci sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim weer wa itam nag weeru tam xarit la waaye fan ya daal mooy nag lu ñu rëcc sëriñ Malick Fall mi nga xam ne nii nag moom la yar waxoon na ko ne daal bisub gaaw la waxoon na ko itam nag fan ya waaye nag sëriñ Malick Fall nag magal nag gu mu magal moo tax daal fan ya nag rëcc ko gaaw ba daal jàpp na ko ak weeru tam xarit wa sëriñ Tuubaa Seex Saalihu Mbàkke nag di leen xamal ne màggal gi waxtu wi ngeen koy def nag ni ngeen ko def nag ab gaaw taw su boobaa nag da ngeen ca am nag taw féexi sëriñ Touba Seexul Xadiim ak taw féexi nag sëriñ Moor Awa Njaay moo tax nag njaboot gi nag jàpp màggal gi nag at mu jot ci gaaw bi mujj nag ci weeru tamxarit ngir mën a dabu nag barkeeluwaale ca bisub gaaw booba mën a barkeeluwaale itam nag ci weeru tamxarit wa moo tax itam nag sëriñ Abdul Xuddoos Njaay tënkoon ko nag ci gaaw bi mujj nag ci weeru tamxarit ci dëkk boobu nag sëriñ Moor Awa Njaay sancoon ci ndigalul sëriñ Touba Seexul Xadiim te tudde woon ko nag daarul Xuddoos dëkk boobu sax nag lañ koy màggale màggal ga itam nag guddi la ak bëccëg ñu ñaanal ci nag sëriñ Mor Awa Ndiaye ñaanalaale ci itam nag ak njabootam ñu ñaan ci jàmbaari sëriñ Touba Seexul Xaddim ga ka Seexul Xaddim sàkku woon ci moom nag mu sanc dëkk boobu tudde ko Daarul Xuddoosa ka faboon léppam nag ci ak mujjëm jébbal maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru yal nañ ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram te taas ñu itam nag ci barkeem li di jafe mi itam nag yàlla na ko suñ borom saafara ci darajay alxuraanul karim amin alxuraanul karim alquranul